musiba gunaw na dox ci diggante policier ak gendarme ma nga xewee uh, ca bésu match Sénégal ak Bénin uh, foofule ca du lay Wade bu Diamniadio uh, bu ñu sukkandikoo ci les échos lieutenant bu GIGN ba nag moo door élément bu GMEC commandant bi moom naa ba sax dafa dóor ak commandant compagnie bi ak confisqué BRM ak téléphone am ak commandant ba dañu ko sax mujjee yóbbu ci hôpital ak policier yi nag mer ba futtu naroon na sax bu dee boobu la match waaye ñu ngi xamale nag ab plainte ko benn yoon rek teg ko ci boobu ndoddu boobule GIGN incident la ñu ko mën a duppee bés bi Sénégal doon daje ak Bénin foofule ci stade maître Abdoulaye Wade lieutenant bu GIGN bi nag moo dóor élément bu GME commandant d'unité boobule di fesal wala firndeel kujje gi am ci diggante police ak gendarmerie loolee wane nañ ko samedi ginnaaw bi Sénégal doon daje ak Bénin foofule ci stade maître Abdoulaye Wade bu jam ñaajo musiba sax naroon naa dox nag ci seen diggante ñaari entité de sécurité et de défense yi nga xam ne ñu ngi fii ci Sénégal Sénégal lieutenant groupement d'intervention bu gendarmerie nationale di GIGN moo xeex wala dóor sax élément ah, bu groupement mobile d'intervention di GMI ba ñu yóbbu ko ci hôpital commandant bu compagnie boobule ah, ñuy wax ne nag moom sax dafa gradé ndax lieutenant de police la ah, jiite première compagnie ci camp Abdou Diassé bu ñu ca jógul woon rek musiba dana dox ci si diggante agent groupement d'intervention bu gendarmerie nationale di GIGN ak policier adjoint volontaire yi di PAV ñu leen di sax woowee auxiliaire wala élément groupement mobile euh, d'intervention du bi loolee nag ma nga xew ca match bi doxoon ci diggante Sénégal ak Bénin euh, foofule ca stade maître Abdoulaye Wade euh, bu li waral coow li rek mooy policier bi nag daf doon ay lieutenant GIGN boobu mu bañ a violer seen dispositif ndax gis nañu ne ku ci nekk rek am nga fa nga war a yem jamono jooju ñëpp nga ca gradin ya bàyyi xel wala sax di supporter équipe nationale bi nga xam ne jamono joojee am na rek xeex ku dox ci diggante lieutenant GIGN nag policier adjoint bi nga xam ne nag ma nga tudd sax gibe moom nag la mu bëggoon rek mooy wax ne ko bul dugg ci dispositif bi nga xam ne suñu commandant def na ko ba pare ndax ci intérieur stade bi dañu wax ne rek gendarmerie waruñu faa dugg moom nag li mu bëggoon rek mooy daal di dugg jël photo foofu la coow li daal di tàmbalee mu daal di jël seen bâton de protection yooyu doo ko ci bopp commandant de compagnie bi yamu ca dafa confisqué BRM ak téléphone portable am wax ne nag waa GIGN ñoom seen entraînement sax ah, dañoom ñoo ëpp ah, ñi nga xam ne ñoom ñooy adjoint volontaire yooyu la loolu nag moo tax xeex ba sax gën a metti ah, mu sol tenue bu correctam taxaw ak ay galon wam moom commandant bu première compagnie bi gis loolee daal di ñëw moom ndaw mi nag ba mu agsee bëggoon naa rek xam lan moo waral xeex wala sax jafe-jafe yi nga xam ni moom moo dox ci ñaari gradé yooyee waaye yëf yi dafa mujjee rek tourné ci moom ginnaaw GIGN ba dafa jël ab bant dóor ko ndaw ca bopp ba ca rek daal di am gaañu gaañu ci bopp ba ba tax sax yamu ca mu daal di rek confisqué téléphone portable am ak li nga xam ni moom mooy béere ba muy sol ca bopp ba ak commandant ba ñu daal di koy yóbbu ci waaye ñuy wax ne nag li nga xam ne moom mooy téléphone baak boobu li mbaxane daal di nañu koy delloo mu nekk jafe-jafe gu gaaw ci diggante ñaari force de défense yi nga xam ne nag ku ci nekk mer nga ba fott bëgg woon sa morom ne fii yayoo ma fi wala ëppale ma fi ci noonee nag ñu daal di gis ne agent euh, ñu noonee ñu daal di gis nag ñi nga xam ne ñoom ñooy agent de brigade d'intervention polyvalente bi di BIP nekk ab corps d'élite yoo xam ne ñoom it ci police lañu nekk xawanuroo ak rek ñi nga xam ne ñoom ñooy GIGN ña nga woon foofule ci ay grade it gendarme ña nga woon foofu ca stade ba ci noonee la ñu waxtaanee rek ba jël beere ba ak téléphone ba daal di koy delloo boroom nga xam ne nag ñu ngi woon ne am na ay gaañu gaañu bañ tax sax ñu daal di koy yóbbu ca hôpital mu waroon na def li nga xam ne moom mooy scanner ca bopp ba xool rek amul ay jafe ndax ndax dóor ba ñu ko dóor euh, moom moo metti policiers yi sax daal di mer ba fottu ne match boobee euh, duñu ko rek àggali euh, ñu ne nag dinañu bind ab plainte jagleel ko ki nga xam ne moom mooy GIGN boobu ndax comportement ba mu am foofule wala sax humiliation ba nga xam def na ko commandant première compagnie bi loolee mun ñu ko nangu benn yoon tax na sax ñu daal di ne buggoon jël seen ay bagage dem waaye ay haut grade nag ñagoon foofu ci stade ba ci la ñu wàccee waxtaan ak ñoom rek ñu daal di revenir à de meilleurs sentiments ñuy fàttali ci jamono joojee ki xam ne nag moom mooy commandant boobu ut na certificat médical boo xam ne euh, dina tax du euh, liggéey waaye itam dina firndeel euh, yooyu les gaañu gaañu te dañu ko déposé ngir rek fësal seen mer ci la nga xam ne GIGN boobu daal dina koy def ñuy wax nag agent GIGN ba yamu ca ndax am na ab waay rek bu sopp romboon gis loole di ko filme mu daal di jël téléphone ba dëgg ca tànkam toj ko ba mu toj lu mbax daal di dem yoonam mu nekk keneen koo xam ne moom fekkewu munti am daal ci diggante police ak gendarmerie ji du ñàkk seen ay njiit daal di toog waxtaan ba xam yëf yi naka lañu koy saafara